asalaamaaleykum waa mbokku internet ñi nga xam ne ñu ngi fu ne àdduna bi di di leen ki nga xamante ne mooy seen doom ji nga xam ne moo décédé si manifestant yi ah, di Cheikh Wade di leen ko jaale baax di leen wax ne yàlla na continué dem fële nga xamante ne mooy àjjanay Firdawsi ah, ñu ngi tey mooy ay waajuram bu jigéen dañ toogal nii bëgg sekk moom ay waxtaan li nga xamante ne jëm na si doomam jooju di Cheikh Wade yaay ñu ngi leen nuyu di bàyyi tamit nga présenté wu. man maay Marème Sow. Marème Sow ñu ngi leen nuyu bu moom Cheikh Wade la tudd. Mm-hmm. ñu la koy jaale. waaw moom demul dikkul. Mm-hmm. waaw ñu ngi ci machine bi dañoo lu mu am bokk ak ñun seen papa gars yi ne mu waroon de quartier Guédiawaye. Mm-hmm. waaw sonal ma benn yoon moom demoon na ci manifestation yi waaye moom moom drapeau la yoro woon di yaan jàmm di wote jàmm waaw ñu tiire ko bal ba mu gaañoo sax xale yu góor yaa nag ba police bi rey na ko police bi rey na waaw waaye da koo xool ba pare image yi ñu ngi koy doo gis da koo rey ba pare daal dem. loolu moo naqari suñu xol ba pare mu nekk xale amagul doom amu dara waaw di wote jàmm kooku xam nga deful dóoru ni reyul nit sànniwul dara waaw te mu likkul waaw loolu lañ xam ci moom. Cheikh Wade euh, amul jabar amul doom xale la. Hmm. atam nag moom fanweeri at ak benn. fanweeri at ak benn. moom la amoon. Hmm. moom Cheikh Wade at euh, jour boobu euh, ban heure la quitté fii ci kër gi daay dem foofu. waaw ci suba gi man fekkuma fi dafa fekk ma dem jëndi hmm. waaw moom mu nekk moom takk na ay dàllam ba dem. ba mu ñëwee toog nañ ba heure bi yëg ba ñuy defar ndékki ci laa koy dañee doog a woote ni ma ku tudd Cheikh Wade la ñu rey loolu lañ moo tax démb ci dañoo jooy bi bëgg a dee démb moom ah, ah, amoon nam xëy wala waaw ñëw doon kocc kocc rek ci machine am bi la yor ñu ci néeg bi doon kocc kocc rek di ñawal ay nit di leen yóbbul waaw téer la woon lu mu am bokk ak man mhm. am na ñaari gramme bu muy ma jot a ñawal sax wante yot eggul mhm. Mhm. ba muy dem moom yéen waa kër gi euh, famille bi am nañu yëg ne moom Cheikh Wade mu ngi dem si manifestant yi wala yëguñu ko waaw sama benn na ko waaye benn seexam bi am seex boo xam ne mi ngi fee ah, seexam jigéen la seex la seexam bu jigéen ma nga fee waaw moom gisu ko man gisuma ko ba muy dem ñun ñaar kenn gisu ko ci mhm. waaye kenn ki moom ba mu xam bi muy dem gis na li mu mhm. moom ba mu dañu defee affaire yi rek la la ko xàmmee mhm. waaye nangu woon wax dafa dafa dafa ragal kon moom euh, si kanamam dañ ko rey déedéet moom demul moom bi nga ko audio yi la gis waaw vidéo yi la gis moom la gisee mu xam ne kii ba mu fiy jóge lii la sol mu doo xam ne kii eh, seex la mm-hmm. ah, eh, ki nga xamante ne mooy état bi te ñoom ah, yan parcours lañ ci def boobu ak léegi ndax ñëw nañ fi seet si leen wala ñëwuñu fi ah, waa kër kii de fi ñëw Sonko waaw ñoom ñëw nañ fi biig ci guddi mm-hmm. Mm-hmm, ñëw nañ fi ci guddi waa waa parce que dégg naa ñu dinañ ñëw tey de lool la loolu la koy wax di hmm, da ngeen a pare pour topp loolu. waaw ah, dañ koy topp moom dañ koy topp yàlla nag mooy rey yàlla moom lu lu lu am rek moom la. parce que yàlla kon waaye ni mu ko defee moo ñaaw moom moom moom lañu nit ñi métti waaw. bu doon nañ ko dafa dee kii rek naturellement sax amul problème da xam ne ku nekk la yàlla di rey waaye ni ñu ko tiré bal bi moom loolu métti moom moom moom métti sama mm-hmm. ki nga xamante ne mooy Cheikh Wade nan la nekk nag ah, rek ak dégg yor machine am liggéey kenn mosu kenn mosu am amul problème mm-hmm. jàmm ak salaam du si gu xool nit du ay man mi sax buy wax ay ma heure la mm-hmm. añ sax buñ ko lekk buñ jox sax lay doon ndax nitu kersa la moom nitu kersa la. tey yan nga nga mën a fàttaliku ci moom ay souvenirs yoo xamante ne nii jour boobu ngeen ngay gisante ba keroog nga dégg ñu sa doom faat nañ ko. xanaa ajjuma ajjuma daal la ma maa euh, euh, ci manifestation bi. Mhm. day ñëw mu euh, ajjuma. Mhm. xam nga samedi ñu ñu kenn deful dara. ba dimanche mi ngi ci néegam tëdd yor portable am. Mhm. tëj buntu bi nag muy génn doog a la ma xale ni ma seex takk na ay daal la ba dem. waaw dem na. waaw boobu nag ci suba gi lañuy heure fekk lañuy doog a dégg ne gaañu ndek moom gaañu na bu yàgg sa waat ñu ngi koy faj digg ñu ngi faat diggante 11h jàpp 1 waaw lañ ko faat jotoon nañ ko yóbbu sa neñ maa abdu pour doon ko ñaw xaw mhm. waaw loolu yëpp wax nañ ko ci mhm. Mhm. actuellement moom si yenn loxo la nekk moom Cheikh Wade jotagoo leen koor jotuñu ko dem nañu wante jotuñu ko ne jotaguñ ko mu ngi tey dan ah, kàddu mujj yi nga xamante ne ngay tàggatoo tey ak ñi nga xamante ne tey ñoo say njaboot ak ñi nga xamante ne tey seen xol métti na leen parce que ñëpp la métti ku ko gis rek bu métti ku ko xamu sax boo ko xamu sax man fi ñëw sax man xawma leen parce que dañu image yi affaire métti leen ñu takkee ni fi mooy sama ñoo jëma seet si ndax affaire bi leen touché ndax affaire bi dafa métti trop ñu ko gis ak ñi kii bi demee loolu moo leen leen metti waaw waaw loolu moo leen metti ñëpp ñu fi ñëw yoxuma leen waaw ñu fi ñëw yoxuma waaw yow mi nga xam ne da nga see ñàkk tey sa doom ah, lan ngay wax li nga xam ne mooy jeune su Sénégal bi tey ci manifestant yooyu waaw ah, xanaa ñu muñ loo ko xam ne yàlla li la dogal yàlla moo ko dogal rek ñu muñ rek te xam ni yàlla moom ki ko def dina ko nit ba mu gis ko ndax bakkan dafa fort mën ngaa def nekk ba mu des rey waaw rey dafa for te loo xam ne yaa ko tey sax di rebal ba nga xam ne jub na nga ko sànni nit ki loolu dafa metti ci xol mën naa muñ ba des loolu moo ko fàttali ko sama xol day jeex doo mën a muñ waaw mm-hmm. xale yu góor yi ko gisee ak ñi ko jàppoo ñoom da leen metti parce que bi affaire bi am police bu ñëw na ba tim ko taal atom dem waaw xale yu góor nag loolu moo lay metti am na ci xale bu góor sax moom yaram bi ba takk deret ndax ñu ko doon sauvé mm-hmm. waaw loolu metti na trop ci xol mm-hmm. tey lan ngay wax tey yi lan nga leen wax tey ñoom yan conseil yan kàddu nga leen di digal tey ñu toog euh, bàyyi li nga xamante ne tey mooy violence bi tey lan ngay wax xale yi euh, jeunesse Sénégal waaw yi xanaa ñu mu ngi rek te xam ni itam dañoo bëgg lu baax rek moo tax ñu manifester ñoom moom yàqul deful dara moom dara drapeau la yor woote jàmm kooku sànniwul xeer deful dara koo xool sax ak nga di nga gis ko ci image bi nga xam ne kii nitu jàmm la doon def ba yor drapeau ba ñu drapeau lañ ko muuree koo xam ne deful ay kii def ay nga war koo dóor sa wala nga def ko dara day fekk muy sànni wala muy yàq waaye koo xam ne kii dafa ne nii woote jàmm ah ba nga yor drapeau koo xam ne kii lay wut yor téere ay bal xale yu góor yi muñ rek te xam ne itam ah lii yàlla moo ko dogal man la gën a naqari man mi ko jur mhm. man la gën a naqari waaw ah, xanaa ñaan yàlla rek sant yàlla yàlla xale ko ci àjjana bi mhm. àjjana yu kawe yi ñi nga xam ne ñoom moo leen dal ñoom ñëpp tam suñu borom jéggal leen mhm. dàqalee seen i bàkkaar te xam ne lii moo gën waaw yàlla seen waajur yi yàlla jox leen xolu muñ ñu muñ te dee ñaan fu ñu toll waaw loolu laa ñaan yàlla ndax yàlla ma ko jox moo ko jëlaat waaw ak ay morom waaw ñoo bokk waaw ñoom ñëpp ñoo bokk desee te ñoom ñëpp am nañu waajur comme waajur lañu man métti mm-hmm. na leen mm-hmm. waaw waaye bu seex bi daf cee gën a siiw mm-hmm. daf cee gën a siiw trop trop trop daf cee gën a siiw moom dafa làqoon fa gën a siiw moom